taxaw ci jour bi di wax ak sénégalais yi xamal ne euh, dafay am projet décret bi waroon na fixer la date des élections mhm. loolee naka nga ko gisee. mais comme une violation très grave euh, euh, de la constitution ak une rupture du processus électoral parce que dañu convoqué woon corps électoral bi on était à douze heures mhm. du début de l'ouverture de la campagne électorale man gisuma woon naka la ñu mënoon a jaaree ba euh, repouser wala gàllankoor élection donc à notre grande surprise président Macky Sall ñëw ni décret bi mu jëloon euh, pour euh, convoquer euh, le corps électoral le collège électoral rapporté na ko abrogé na ko sax la wax mm-hmm. donc loolu mu doon loo xam ni moom tàmm na jël ay anti anticonstitutionnels parce que ñu fàttali rek ni période révision exceptionnelle des listes yi loi électorale fixé woon mu ngi ko fixé woon en début d'année au mois de janvier pour que ñu am six mois de période de révision mais d'autorité dafa jël un décret tout simplement ni léegi avril la on réduit le délai à un mois. Mhm. donc yu mel noonu il nous a habitué à ça. mais est-ce que aussi ñu mel ne yow ak ñeneen les acteurs politiques en général n'ont pas trop laissé faire parce que li ngay wax ni aussi c'est déjà grave à l'époque mhm. mais dañ ko coow rek bàyyi bàyyi mu jàll. waaw c'est vrai que à l'époque j'avais alerté que opposition bi taxawaay bi mu waroon a am. Mhm. ci euh, changement wu ouverture liste yi. amuñu ko woon j'ai alerté mhm. comme ni ma doon alerté ci leur droit d'accès au fichier électoral conformément aux dispositions de l'article L49 du code électoral mhm. donc am na ay combat yoo xam ne joxuñu ko dayo bi mu waroon a am euh, en en en amont mhm. léegi nag bu ñu ñëwee ba fii ñu jël une mesure parce que bii li ci grave mooy dafay laal constitution bi nii le mandat est de cinq ans article vingt sept day laal la clause d'intangibilité et de et d'éternité article 103 bu ni mënuñu laal mandat bi mënuñu laal durée du mandat bi euh, comme la forme républicaine de l'État donc yooyu bu fekkee ni décret boobu day am incidence boobu c'est-à-dire au-delà du 2 avril ñu nekk devant un vide constitutionnel et juridique mm-hmm. et même institutionnel parce que boobaa amuñu président bu am légitimité mais on va dans l'incertitude